iii quel gàcce national mamma mia lii moom yéenewuma leen ko sénégalais yi jërë ngeen jëf dal leen a jàmm ci seen acte des ginaaw ginnaaw ba kii nga xamante ne bii moo di Abdou bi mu génnee son boobu nga xam xamante ne bii mu ngi ko dubbee ci turu Idda ginnaaw boobu son boobu génnee sénégalais yi dañoo yaakaaroon ne kat son bi bu génnee kii nga xamante ne bii moo di Abdou da ci nekk di xas Mia ak di ko wax naka sa dul noonu mais ginnaaw boobu son bi génnee son bi dafa nekk son bu triste boo xamante ne wax dëgg yàlla son bi ku ko déglu sa yaram dina daw ba pare wëlbatiku tamit ba nga cay wax Mia loo xamante ne bii Mia yaakaaru ko woon na sax Abdou dina ko wax. ba loolu amee nag kii nga xamante ne bii moo di Balla Zéro Stress dafa génn def ci ay révélation yi doy waar gars ñu dem seetaan loolu. son bi neex na kàddu yi daw nañ yaram am nañ solo yéen ñëpp bi ngeen dégloo son bi képp ku deret di daw ci yow bi may def bu fi kenn ñëw nag naan ma baara dangaa contradictoire bu nit ñi jaaree gauche nga jaar droite waaw parce que man du ma naaféq man ni ma ko gisee noonu laa koy waxee ni ma ko sentiree laa koy waxee sama point de vue la nag sama point de vue ma waxaat ko encore su ma sañoon yéen ñëpp xam ngeen ne man bi coow li commencé ba léegi man xale bu góor bi moom lay support bëgguma ku ko laal te ku ne xam ne ne tasu célébrité mosul maa métier à sa point pare naa sax pour ñu def benn pétition dem jubale man Bara pare naa mais son bi su ma sañoon papa coon yal na ko yàlla yërëm wu rëy wa mu wéyoon jaaga jamono boobu yàlla def na ñoom ñaar ñu ngi def nii mu rendre hommage jabaram képp ku ci amati soxna ba bëgg ko rendre hommage rendre ko hommage ba muy ne sa kër bul xaal ba mu dem nga def médecin après la mort comment on peut faire ça maabo